foofu Amet Lac Rose la jël daal di koy boole ak doomu jàmm gën Franc mbër mu jox ko réparé ci kiri caacoo ak xëy saara mbokk yi ama bu yaraax ak gorofil sëy jàmbaar dina fa jàkkaarloo ak joona bi sentel junior jàkkaarloo fa ak nduquman njaga oro numéro 2 ak petit zé petit laay jàkkaarloo fa ak boy radiateur animation ba ibulaay nee na moomoo ngom mbayang lum nabu yaa daan ak waa kër Pape Seck yi invité d'honneur mu ne Modou xarañ Lo le roi des arènes Franc Goro Sok Talfa Damsen guy gi gargadeur sponsor leader yëpp mu ne ETDR bu production Lutte King Boisson Tampico entrée supporter Iboulaye ne 2000 francs amateur 5000 francs loge officielle 10 production xale yi mu tëgg rek nar a tey ji làmb ëllëg. jërë ngeen jëf mbokk internet di jàkkaarloo ak ñun ci luttetv.com ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare dimanche la saison bu war a tëj Iboulaye production moom moo ko war a tëgg Iboulaye ne ko ko xam-xam ko ak Modou Lo ndax yaakaar naa ni combat bi jàppoon na ko yàlla dogal. xat-xat am ci dëkk bi ba war a doon ñu puus ko ñu ajuwaat ko pour dimanche incha allah rabbi Modou Lo fas yéene waxtaanaat ci combat boobu noonu waaye waxtaan ak drapeau bi nga xamante ne tudd nañ ko magam léppam di Papa Sow maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyu mbokk internet bi. maa ngi lay fay di nuyu internet Lutte TV yëpp ah, di nuyu waa Sénégal di nuyu diaspora yëpp. comme ni ma ko waxee rek Ibrahima moo war a ñëwaat. la fois passée ku ne xam na ne ñëwoon nañ fii doon waajal combat bi. yàlla dogal dëkk bi amoon xat-xat jàppaat nañ ko pour dimanche incha allah rabbi lan ngay wax amateur yi pour dimanche ci combat bi war a dox ci diggante Youssou Ndour ak Mor Kang waaw comme ni nga ko waxee rek laa mujj jàppoon nañ ko depuis yàlla def ndog ba affaire yi mujjul am di ñaan yàlla nag dimanche bii di ñëw la vingt 27 out incha allah yàlla yóbbuñu ci ak jàmm d'abord làmb am ak jàmm réussir incha allah ndax loolu la ñu ñaan comme ni nga ko waxee bis suñu bis total total incha allah comme mooy baptême de feu incha allah mu dugg ci ci bisimilah ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin loolu la ñu ñaan te yàlla nañ ci yàlla yóbbu boobu. oui. sa diggante ak Ibou Laye kañ la. waaw loolu moom du tey yàgg na xam nga loo fi mënoo ko sa àpp rek quoi wax dëgg yàlla yàlla moom ñuy boole yàgg na trop trop trop trop xam nga ñu ànd ànd nawle ànd ay frère xam nga ànd ay góor daal xam nga ba tey. nu ñu doon xoolantee nu ñu jàppante woon lañ jàppante ba tey xam nga vraiment muy nit ku baax daal ba tax na dañ koy ñaanal rek bisam bi yàlla def ci réussir total incha allah ba lu ciy séntu sax yàlla ko ci lu kawe njortam. Mm-hmm. loolu koy ñaan parce que bisam moom comme ni ma ko waxee rek suñu bis daal. Mm-hmm. waaw ku xam Ibulaay xam ko Moodu xam Moodu xam ko Ibulaay. Mm-hmm. suñu bis lu ne la ci daj lu ne la ci daj. ba na ñu tamit incha allah taxawaay yooyu la ñu fas yéene am lépp lu ñu mën rek ba bis bi réussir incha allah. dañ ci taxaw bu soobee yàlla. juddu leen boole wala làmb moo leen boole. non du làmb comme Sénégal rek xam nga mu dëkk parcelle mu dëkk parcelle unité 20 walaay dëgg man ma dëkk unité 10 sorewul xam nga wax dëgg yàlla su ma rakk sax la la gënoon xam. yàlla du ñu boole xam nga noonu ba ñuy ànd xam nga muy nit ku baax nit ku mën sonn ci nitam vraiment xam ku ko ku ko xam di nga ko gën a jàpp parce que ku mën sonn ci nit la vraiment. bu mhm. leen yàlla boole moom lépp lu mu def pour diggante bi dëgër da koy def. xam mhm. ba tax na nit moom bu la bu mënee ci yow noonu maanaam du mun rek du delloo ko loolu wala sax nga yéene ko lu ëpp lu mu la yéene vraiment. waaye daal yàlla ñu boole yàgg na ñu dëkk parcelle sorante wuñu waaye. Mhm. lan moo gën a marqué waaw su may wax li ma marqué moom xanaa daanaka mën naa ne fii lay faral comme li ma wax rek ku ko xam-xam ko ku mën sonn ci nit wallahi la asim tey yéen a ngi ànd nii tey bu xamoon danga nga lii wala dara lépp lu mu mën a def ba loolu déggante da koy def xam nga lu ma defal nag lu gën a rëy ci man nag ku nekk xam na doom nu mu saxee ci xol muy taawam Moodu mu jël ko tuddee ma ko maanaam bis boobu tamit bis bu rëy rëy rëy woon ci man parce que xam nga yàlla boole nañu xamante nañ mais daal loolu vraiment lu moom marqué la ba tey wallahi a mm-hmm. tax na dañuy ñaan sama turandoo boobu ak yeneen doom yëpp ak umu ah, ñoom suñu papa yëpp yàlla màggal leen te barkeel leen def na magum ne sàmm def ñoom barke ju bari ak njabootu jullit yëpp incha allah ah. noonu la demee dimanche la war a tëgg comme ni nga ko waxee diggante Mor Kankan ak Youssou Ndour ñaari mbër yooyu est-ce que tax na nga miin leen torop torop ci seen bëre. waaw waaye xam naa leen Noor Kanke moom xam nga ambiance moom <laughs> waaye waaye laa ko ci ambiance lool lool lool. Mm-hmm. Youssou Ndour tamit xam naa ko mooy doomu Père Balla Gaye xam nga bisoo daal bu nara alaat daw me la lay parce que ay lamb amateur lañ fa tëgg lamb yoo xam ne amateur dañ ko soxla te bis yu mag la mm-hmm. rawatina nag ñun parce tamit ñu am ci bis yu takku. xam nga ñan moom koy xalam di ci jaayoo. wax dëgg yàlla parcelle moom desu ci ginnaaw parce que su ma juumul am nañ ci ay quatre wala cinq combats. waaye xam nga say jàmbaar mu ngi ci war a bëree. Lamine ñu laay mu ngi ci war a bëree xam nga eh, Ndiaga Oro mu ci war a bëree. ak eh, ak ak Franc. Bëran ak sama Seydina sama doom. ak Anaconda way drapeau Papa Sow. comme yëpp ñu ngi ci am d'ailleurs dama leen ñaanal. yàlla may leen ndam mbëru parcelles yëpp incha allah ndam ñu sedd guy daal di ko préparé comme ni ko ñëpp war a préparé rek suñu bis la ñaari yoon mbëru parcelles ñu ngi ciy bëre non du ma sax ñaari yoon ba ñetti yoon waaw Ibulaay tëggu ko mm-hmm. Papa Sow am ci drapeau mm-hmm. xam nga waaw ak de la jeunesse mm-hmm. di ñaan daal yàlla yóbbu ci ak jàmm ak xam nga waaw am ambiance bu neex combat yi neex ndam bi ñëw parcelle Sénégal jëm kanam. kon nañ xaar Modou Lo dimanche arène nationale parce que mu li mu ñëw arène nationale moom bu matee ñett xam naa ne ci que mën nga mën amateur yi mën nañ la xaar Modou wàcc wàcc fecc tamit surtout. non non incha allah loolu moom suñu bis loolu moom ma ne ko jarul sax hésité moom suñu bis la ñu ngi fa incha allahu taala pour soutenir suñu doomu ndey Ibou Laye waaw yàlla def ci bis bi rëy allah. Mhm. drapeau Papa Sow. ak drapeau Papa Sow moo tax ma ne juróom dañ fa am cër yu bëree bëree bëri bëri maanaam lii war taax ma ñëw dafa bëri dafa bëri vraiment. xam nga waxuma la Ibrahima mu tëgg rek loolu benn affaire la. Mhm. mbëru parce ci bëri Papa Sow am ci drapeau xam nga loolu daal vraiment dañuy ñaan daal yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm. amateurs yi supporters yi ñëpp ñëw ci discipline. Mhm. supporter seen mbër. xam nga bis bi réussir waaw Sénégal jëm kanam. nouvelle génération bi comme ay Mor Kankan booy comme booy yu bëri dimanche Diop doo jeex jàmm booy suñu bëri léegi presque stade day fees ay bébé jën nouvelle génération bi nan nga leen gisee. ah mais macha allah loolu la ñuy ñaan xam nga loolu lépp yokkute làmb la rek xam nga parce que tey comme li ñuy wax làmb mooy suñu sport national fii Sénégal mais tamit comme xeex yi bari na xam nga wax ci bari na. mais nag booy di ñëw wane seen bopp xam nga di bëri lu neex di mobiliser lu bari macha allah loolu beneen dayoo lay yóbbuwaat làmb parce que li may wax rek làmb moom kenn mu def lépp. ku da ngay ñëw def li nga mën keneen ñëw def li mën. wax dëgg yàlla nouvelle génération yi ñoo ngi gis booy vraiment ñoo ngi gis combat yu neex surtout mobilisation ñoo ngi koy def bu baax a baax xam nga dañaan rek bu jëm kanam ba pare comme ni may wax chaque fois rek discipline toujours parce que tey bu ñuy jàppale seen mbër yi di dem seen mbër yi xaalis boobu ñuy gagné mooy seen gagne-pain waaw te nag ku ànd ak sa mbër mu dem da ngay ànd ak discipline bañ a yàq dara xam nga violence daal bokkul ci sport vraiment violence bokkul ci sport. sport lu war a boole ay nit la xam nga waaw nga supporter sa mbër kenn supporter mbërëm ñu daan ngeen xam nga xëggante encourageante kii félicité xam nga après mu jeex ko mais daal violence moom dafa war a jeex ci làmb bi surtout làmb dafa weex dunku Sénégal. mooy bu bëri Dimanche Diop 2. yaakaar naa ne seetaan nga combat am moom moo nekkoon neuf combat neuf victoire ci taxawaay ak ci bëre ndax jàpp nga ni war na mën a nekk champion pour mu nekk champion yow en tant mag lan nga koy conseiller ci ba yan tànk la war a tew waaw a ah, macha allah comme ni nga wax sànq yaa ma koy gis naa ko ba mu booy bi te ba muy mu mu kal ko quoi waaye ma ko gisee am na taxawaay macha allah comme ni nga am na mbooloo tamit neuf combat neuf victoire loolu benn affaire la. bu góor góorgóorloo la moom sport sax de manière générale amul secret lu dul entraînement waaw lii moo lay may jël sa kem kattan lu li bëgg nga di ko def te sport ku wax sport ku wax bëree ne sport entraînement maanaam respecter say entraînement xam nga respecter sa encadrement ñi la mag nga jox leen cër xam nga affaire yi boo ko def boo ko defee moom xam respecté surtout say supporters tamit xam boo ko defee moom li nga bëgg ci làmb yàlla mën na la ko defal. waaw Bébé Diène tamit champion la xam nga maa ci làmb simple yi xam nga ñëw dèjà loolu rek kii la quoi formation bu taaw la xam après ñëw encore ci làmb ci ñoom daal maa ngi leen di souhaiter daal yàlla defal leen bon carrière loolu yëpp yokkute làmb la incha allah waaye. président de lan lay woowee léegi parcelle Franc ne def. waaw day tooñ quoi. non yow yaa créé sa gouvernement jël Papa Sow def ko comme ministre de l'intérieur. <laughs> ah non ñoom ñoo ko créé kon ñoom ñoo ko créé ñoom ñoo woowee président président. Hmm. amin xëy na damay waaj a nekk président dara wala. Ah. xeebu moo ko amin <laughs> yàlla na ko yàlla defee. bu ñu nekk président. non mais loo fi mën a doon bari naa. président groupe sax président la république. est-ce président de la république. dans la vie tout est possible yàlla lu nekk mën na nekk. lu nekk lu nekk dans la vie mën na nekk waaye. ah na non non loolu moom nekkul sama bopp vraiment. waaye mais dans la moom tout est wax dara mënul nekk lépp mën na nekk. fu may jeexale ak yow ci moom la moom Franc amoon na combat am ndam. mu ba léegi macha allah mu ngi ci ay dynamique de victoire am temps yi nag coow li bari na ñi ngi wax digganteem ak Gris 2 ñii wax digganteem ak Sa Thiès ñii di wax Quench ñii di wax Moussa Ndoye waaye moom ñi ñu ñëpp bëgg ci kenn. Sa Thiès la bëgg ndax combat boobu combat bu ñor waaw li may wax rek Franc moom d' dañ koy ñaar incha allah tey nu mu débuté yàlla def mu terminé noonu incha allah yàlla def ci làmbam yëpp ay ndam mu bañ a dégg muñal am na yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla def moog Sa Thiès la tey làmb gis na dafa am fu muy toll mooy tonte yu bari sax baaxu ci yoon nag am na. mais tey même fu mu jógee daan forsa amatul mbër bu ko war a bañ amul non taamu yu bari moo nekk ci làmb xam nga ak mooy tontu rek quoi mais franc nii nii amul mbër bu ko war a bañ ci làmb. saa raw ko. ah. saa raw ko. non ku daan forsa <laughs> raw amul foofu noonu ku daan forsa yaa ngi cour des grands mën nga bëri ñëpp mën nga bëri ñëpp yaa ay raw amul ci loolu kon sinon doo gis Sa Thiès mu daan Reug Reug Reug Reug ñëw bëri ay raw amul comme ni wax rek des fois mooy donte moo ci am ak yooyu noonu mais ay ay raw moom yooyu amu ci vraiment. kontaan naa ci yow lan ngay tàggatoo. waaw Lamine gën a bëgg ci yow ah xam nga encore ci liggéey bu rafet bi ngay def ak discipline bi surtout quoi di wax yàlla yàlla yokk li TV mu def ko ay télé yu mag ah euh, yéen nga am sa bopp ni ñi ko ci yow ñu la bëgg yëpp yàlla motali ko incha allah. vraiment daal di ñaan lamb xam nga nit ñi gën ci jàpp Sénégal surtout moom la ñu am. CNG ñoom it gën a defar seen taxawaay. maa ngi koy wax chaque fois di ko suñu lii di ko souligner ko maanaam ku jiite dafa am noo war a taxawee. caractère surtout. mais CNG bi dafa bari fay trop trop trop yi fi am yi fi xew daal. dafa bari yi nga xam ni daal kenn mënu ko expliquer. dafa mel ni xaw ma mbëri laay wax wala ménager wala promoteur dañ leen di dañ leen di dañ leen di foowee quoi. parce que mënoo comprendre lamb chaque jour ak version bi ngay dégg kon ñu si suñu lamb yi tey bu subaa nga ni bii kii mooy am tey suba lee mooy am lee mooy am mais CNG moo war a taxaw tracé affaire mu leer. bu dee day waxtaan ak promoteurs yi wala mbër yi ñu wax mu tracé mu leer. parce que am na décision boo xam ne dernière décision seen loxo la nekk. mais nag am na loo xam ne ñooy ngi wane faiblesse bu baax daal te loolu moom saay yi jëmul kanam jiit da ngay dëgër. jiit saa da ngay dëgër xam nga di jël say décision. mais doo xam des fois daal doo comprendre kenn. dina yomb tamit parce que ñoom parfois dañuy jël ay décisions yoo xam ne parfois mën na luur yéen mën ngeen ñëw di ñaan mbëri mën nañ ñaan manager mën nañ ñaan ak lu làmb ñu bari di ñaan naan CNG nañ teg luy dëgg ñëpp xam nañ ko mais li may wax chaque fois njiit faw mu am rigueur. du loolu laal rek ñi ñëw ñaan nga bàyyi no mais dafa am loo xam ne mooy yoon ñaata temps la ñu toog bëriwul chaque jour nga de kii dugal na guérison kii dugal na cervical médical kii lale maanaam déedéet fooy bu tayee ñu ni lii mooy am bu subaa ñu lee mooy am loolu dafa war a jeex loolu du ay question ay ñaan ak ñoom seen loolu règlement yu dëgër la war a taxaw isam ndax ñoom ñu appliqué ko affaire yi avancé mm-hmm. am na loo xam ne bu amee yow boo fi nekkee sax da ngay téye ci CNG bi est-ce que lii CNG la mm-hmm. waaye boo jiitee da ngay am tuuti rigueur mm-hmm. xam nga boo nee lii la nga def sa kéem kattan mu nekk loolu mais chaque jour lii suba la lay gannaaw suba loolu moom vraiment doxul. mais sa combat ak ak Ama Baldé tranché nañ nee nañ le 5 novembre la le 12 novembre wala oh, le 5. le 5 le 12 Tapha Tine kii la le 5 bi leer na yaa ngi ci wàcc. loolu la ñu wax yàlla na ko yàlla mottali mais comme ni ma wax rek comme ñu ko ñu bari di yëgee noonu laa koy yëgee ah non parce que loolu mooy am parce que ñaata yoon lañ fiy wax. kii lay bëril gannaaw suba ñu ni këree lii dat bi lii dat bi waaye da ngay dégg lii après nga déggaat ay kee dem na dugal na lii changé na lii changé na moo tax comme ni ma la ñun ci luñ nekk moom ñu ngi ci suñu entraînement xaar ay bii bi bi combat bu ñëwoon suba pare nañ mais pour muy leer tey buñ nee lii la mu nekk lii mais comme ni mu wax yu ci bari yow da ne ci li nga war a nekk rek mais doo am sax sometimes doo am yaakaar ne lii est que dina dina sotti quoi. mais yéen ci préparation ou le 5. ah non yow yow yow am na loo xam ne jaarul laaj man maa ngi cantal maa ngi anyway sëñ bi sax sori na bu ñu defoon saa septembre sax pare na yaa ah oui pare na. yaa fi wax CNG parce que yow yaa souligné débat jàppoon nañ benn combat pour le premier octobre Gris Bordeaux Ama mu waa Fass nee nañ mënuñu bëre mënuñu préparer ci deux mois loolu tamit yow ban gis-gis nga ci am. bras de fer genre bras de fer boobu. rek CNG warul toll foofu ay bras de fer. CNG dernière décision ñoo ko yor maanaam bu ñu tënkee dara loolu du ay caaxaan moo ko war a ñoo ko war a tënki non pas ay ñëw ñooy wax ak kii ñoo ngi négocier non non affaire bi day nekk loi lii la lii la un plus un égale mu jeex mais amul lu ñuy négocier wala fii wala war loolu am moo tax may wax xam nga da ngay gis faiblesse ci seen liggéey quoi vraiment loo xam ne moom bu ko tënkee dafa war a dafa war dafa war a taxaw. bu demee ba ay ñoo ngi négocier ñii ñoo ngi wax ak ñii loolu war nañ ko dépasser waaw. Ah Lamine fii la ëppee. du ma jeexal nag te waxuma ak yow ci jàllabe ay rafet rek ngay sol. bu nekk. waaw fii nag moom madame moo fi jaar quoi vraiment xam nga di wax ku bëgg jàllabe bu rafet moom mu ngi jaay ci Instagram bi page mu ngi turu Birafa Baye Adja Biram numéro mu ngi foofu ku ci bëgg rek jàllabe yi mooy sol yëpp ah waaye mu ngi Instagram kay waaye Birafa Baye Adja Biram wala ku ma contacter koo ci bëgg quoi wax dëgg yàlla yi mooy sol yëpp moom moo koy moom moo koy solal quoi. mooy jàpp ci ah, ñuy def yow sax nag war a jàpp yow <laughs> incha allah vraiment kontaan ci ñëpp.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 foofu Amet Lac jël daal di koy boole ak doomu jàmm gën Franc mbër mu jox ko réparé ci kiri caacoo ak xay saara mbokk yi ama bu yaraax ak gorofil sëy jàmbaar dina fa jàkkaarloo ak joona bi seen sentel junior jàkkaarloo fa ak ndukuman njaga oro numéro 2 ak petit zé petit laay jàkkaarloo fa ak boy radiateur animation ba ibulaay nee na momo ngom mbayang lum nabu yaa daan ak waa kër pap sek yi invité d'honneur mu ne Modou xarañ Lo le roi des arènes franc goro sok talfa dam seen guy gi gargadeur sponsor leader yëpp mu ne etdr bu production King Boisson Tampico entrée supporter Iboulaye ne francs amateur francs loge officielle francs ci Iboulaye production xale yi mu tëgg rek na